wàcce wàcce booy bi. non ni demee. waaw waaw waaw nan ba ñaara ñaara ñaara baal ma tooyal sama mbokk tooyal yow bu li bu li eh bu li nan doxal ñaara yow jàkkat na nga ñu jënd kat na yéen a jënd kat wa dama boolu nan bi bu nga bëgg a jënd ko ko ay nen yow jënd damay bàyyi damay bàyyi de ngor sal yow dañ yow ki jaaxaanu day jënd yow doo ci fulal mais eh, Nabou Gaajo dañu leen baxal. mais ni yaay nenu de anta nenu. anta nenu. mais Baye moo daan nen mais Baye moo daan nen. Baye kan moo daan ne ni def ci poobara jumbo yow na sax. sëñ Ngoné. Ngoné. nan baxal ñaara. ñaara ñaara. saf safal nga yor de bu dee. mais waa presse gaa leen lekk nen. 150 lay jar 150 ah. non attends non bu ko bu ko 150 la lu muy jar. lu muy jar 150. waaw. nee na boo amee sa bopp xanaa 115. non non non sax sa yëpp ci la bokk. waaw nag yàgg na yàgg na jël. mais nenu baxal ñaan la jar. ñaar la jar di ñaar la jar nga wax. non non dama lay laaj déggu ma bu baax. ñaata ñaar la jar. Ngone. Ngone. Ngone bañ a dugub xewoon na fi de léegi nenu baxaal a xew. dafa ci sa nga jox boy ku nekk benn nen ku nekk Ngone Ngone doo ngoone ngoone bañ a dugub xewoon na fi laawa léegi nenu baxal moo xew. moom nenu baxal xaaral mu tojal la. bàyyi tool mais mais ngoone. ngoone bi lan moo ci nekk ay nen. ñaata nombre ñaata nombre ñun ngay torturer ndax nen ah, ñun ngay torturer ndax nen ah, bëggoo leen eh defal ma nen man damay lekk nen ngoonee jëndal nen defal ma nen eh, defal bul toj 39 39. 39 nen laa gënal bëgg a. 39 nen. kii eh, eh, Ngone na ko def 40. waaw def ko 40. ah mu tuur mu tuur parce que boppam ci gàtt kees gàtt kees nga dem man damaa xëy na keesu dëgg yàlla. mooy sama ndey. 40 nekk. 40 40 sama boss ngay defal. ayca. ñaata la. 30 la ñu joxe benn muy 40 muy 40 waa 40 laa yem may dina kenn. am na 40 waaw sama ndey la ngeen di yaa. su ko ne koy woo baa bi ngay woo. manqué na benn pour ma jëkkër laay woo. waaw waaw waaw. bon oh, maa ngi dem de waaw waaw man du ma am ne. ay 40 bi jox ko borom lu orange. jox man du ma am nen te nga lekk ba. suur naa non non non. boo lekkee sama nen woowee ma mbote. non sa nen yow ku lekk sa nen. daa bokk sarax. sarax nday mooy jël waaw. man la. maa de dégg nga. su ma ko lekkee jig na ko de. su ma ko lekkee jig na ko de. abala déedéet jeex na 40 bala yem. abala fiw fiw su ma ko lekkee jig na ko. kuy jënd da ngay fay dégg nga. léegi léegi léegi bonus léegi bonus ka benn. ah 40 nen doo maye. doo maye benn. dama leen benn. non man dama lekk dama lekk nenu sarax. eh jaxe yéen ma yow kay. léegi man maa la ñaan rek. amul. am na sax soxal joxal nen bi. yow Nabou lekk nga ñeent nen. ah waaw sa nen. su amee sa soxal day saf. quatre nen la lekk. man quatre bi mooy sa quatrième nen. li ma jaaxal journaliste rek lekk nan nag. gërëm. dégg nga. six mille la ana may na la jox defoon naa ko ji xoolal dama koy dara ana may waaw ñu di ko ñaata nen ngeen lekk saa kii bool yëpp la foofu six mille nen lañ jënd six mille nen ngeen lekk ma leen ma nen jox leen ma nen joxoon ma nen jox moom nit nen la moom nit nen la sax man jox mu wala joxuma nen de ay nga def ñaar lu nen la de. maas mi lekk ñaar la. <laughs> maas Dakar laay moo lekk cinq nen. maa ngi lekk na nen yëpp nen la. maas Dakar laay fii toog di filmé di lekk rek. yow ak Nabou Ngom ay nitu nen ngeen. Nabou nen ci yow. Ah. xoolal ma bee Omar xoolal Omar xoolal Dakar booy tamit nit nen la de. Omar ñaari nen la yor ñaari nen. Omar Omar Dakar booy nit nen la de. nen bi nen kan la. waxuma rek. non li mu la wax leer na nee na nenu bugaan la. waaye ci xaalisam la jógee. waaw waaw waaw man damay lekk da ngaa bëgg nag. saa defal ma 6000 francs nag lañ jënd 6000 nag waaw doo garaaw 6000 francs nag lañ jënd. Oh, yow bu ñu jëndee ñu 6175 francs nag. boo ne ñaari de kon 6300 nag la jënd. tey nga cee bañ a def poobar. Asadou. 625. day jënd nen. xaaral ma sama ñaar. ah jërëjëf. yow dañuy jàpp si combat bi ñun góor nañu naan. ah man nag da ngay ñaan amatu dafa am xanaa. neen yi neenu lan la. neenu yaay yaay. neenu ginaar am na. mais yi neenu nit la. neenu. benn nit la. wax men kii lay jar. cent cinquante yaay. kan moo wax loolu. bu amee sa soxal cent quinze francs. kan moo wax loolu. ñu mën a. waaw eh, jëndal leen sama xarit. nangoo de am nga ci nen bi am nga ci nen bi. am nga ci nen bi. Bamba Junior Feeling Dakar. loo ne loo ne Bamba Junior Feeling Dakar mu ngi nii jël na ci nen yi. jël na jël na mu ngi nii. yaay booy da ngay jël ci nen bi. ah ah. Aysatu. Aysatu. danaa bëgg ci nen bi kaay nana. nana kaay. waaye kii kañ la ma jox samay ñaar. kaay. kaay jël ci nen bi. samay damay gerte doo ma jox samay ñaar. damay gerte doo ma jox samay ñaar. danaa gaaw ci xol li sax. mais bu gaan diglewul la da ngay jël sa temps. bu góor wala bu jigéen